100 jours euh, nga nekk euh, à la tête de l' agence sénégalaise de la reforestation de la grande muraille verte donc 100 jours yi nga xam ne peut-être euh, bëggoon nañu aussi nga andi ñu nga wax ñu sa bilan. Ah, loolu neex na ma de <laughs> téeméeri fan économie 300 millions la ñuy def si xëyum ndaw yi. économie 300 millions la ñu def benn ñaar ci téeméeru fan yooyu signé trois convention 3,4 millions de dollars. la ñu indi c'est-à-dire Sénégal du yëkkati xaalisam joxe ñoom ñoo indi seen xaalis joxe pour jàppale ñu si lu ñuy def surtout reforestation et surtout muraille verte ci surtout ci volet recherche recherche développement dafa am dafa am njëriñ parce que boo xoolee euh, muraille verte bu ma si jege jëlee exemple 2007 la miral tëralee muraille verte objectif bi 2030 la ñu ngi 2022 15 ans d'exécution 8 ans moo ñu dese ci fenêtre boobu léeg day continuer sax mais huit ans moo ñu dese bu ñu bu ñu xoolee mbir mi ne état d'exécution bi ci ci réew yu sekk muraille verte yépp onze pays yi ah yaakaaruma ko ñu yegg fa quinze pour cent te Sénégal doon na ci élève boo xam ne bu ñu gën a ràññee te président liggéey boobu yépp doyu ko parce que dafa gis ne que war nañu mën a def lu weesu loolu donc ça veut dire que on a huit ans pour faire quatre ou quatre vingt cinq pour cent de de de nos objectifs donc dañoo war a changer euh, système moo tax ñu war a ñu war a ñu war a ñu war a ñu war a liggéey lu bëri loolu moo tax ñu war a dem uti ay partenaires parce que man jàpp naa ne que état du Sénégal lu muy def si si si Grande Muraille Verte investissement bu muy def yaakaar naa que beneen investissement bi ñun ñoo ko dem war a jëli parce que am na ñoo xam ne mun nañu lever des fonds à l'extérieur donc lii nii coopération sud sud kese la moo tax ñu ñu lever 3,4 euh, millions de de de dollars en en en 100 jours bu dul loon sax parce que y avait pas de planification et dama fekk wax dëgg yàlla foofu tamit il faut ma ko fekk agence boo xam ne amuloon administration loolu il faut ma ko je suis en train de reconstituer tout agence bi nii dafa mel ni mu ngi doog mu ngi doog a juddu parce que damaa fekk ni ci mbirum kayit ci mbirum administration euh, man sama bopp ar yi ma am ci archive wax dëgg yàlla néew na doole. donc loolu maa ngi koy defaraat donc maa ngi koy defaraat pour ñu am administration am am am liggéey bi jaar yoon loolu euh, loolu loolu liggéey bu diis la bu dul loon loolu sax day fekk weesu nañu fu fu ñu fu ñu nekk euh, campagne bu ñuy def moom campagne reboisement ak journée de l'arbre bu ñuy dem moo ñu xaw a tënk tuuti mais am nañu capacité euh, mobiliser lu bëri l'autre aussi on a pu constituer constituer une équipe d'intelligence collective Euh, boo gisee mën ngaa def micro trottoir trottoir ci biir agence bi nga laaj leen euh, lu changé si 100 jours yi dinañ la ko wax si si wàllum euh, gestion ci biir agence bi si boppam l' agence est devenue beaucoup plus dynamique parce que dañuy liggéey 8 heures du matin du lundi au samedi man maa ngi fi en tout cas de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures du lundi au samedi donc am na ay fan sax fanaan naa fii sama biir bureau sama équipe yaa ngi nii ñoom si seen bopp fanaan nañu ñaari fan ak man si biir bureau bi di liggéey loolu c'était dans le cadre pour mun a assainir fichier Euh, lu si des dama fekk bi agence bi ci biir bureau de quatorze pièces euh, si cent à peu près vingt employés ci bureau de quatorze pièces kenn mënu liggéey les les les presque les trois quarts des employés ne viennent pas travailler parce que amuñu sax espace bu ñu liggéey ma jël batiment bu R plus cinq avec quarante six pièces et et pour le presque le même montant de loyer en réalité bâtiment bi sax moo gën a moins cher que lu ñu doon fay que lu ñu doon fay. te ku nekk am sa bureau ku nekk mën a liggéey ku nekk di nga ñëw à heure système laa fi teg ku nekk boo heure boo ñëw xam naa ko heure boo wàcc xam naa ko parce que ku nekk daf dama la jox système de pointage te ku nekk dama laa jox fiche de projet euh, fiche fiche fiche de poste te ku nekk da am responsabilité par semaine responsabilité par semaine tâche yi nga war a exécuter par semaine objectif par moi et objectif yooyu yëpp bu ñu ko tëralee dina dina dina tax ba ñu ba ñu avancer ku nekk da nga am responsabilité bi ngay assumer te te te sama bureau musul tëju sama bureau ngi nii amul amul saa bi caa caa bi les employés c'est c'est tout le temps quand je suis là ku nekk mën ngaa ñëw wax sa soxla ñoo ñëw ñu waxtaan ci et les décisions sont prises en interne en intelligence collective daanaka yi bi ma fi ñëwee ba léegi décision yi ma fi jël bariwul de ñoom si seen bopp ñooy poser problème ñu échanger ko suñuy diggante ñoom si seen bopp ñooy suggérer ay solutions ñoom si seen bopp ñooy porter volontaire pour exécuter les solutions ñoom si seen bopp ñooy porter volontaire donc man je fais le monitoring et, et marche assez bien euh, beneen anam bi tamit la ñu war a xam ne que agence bi bu mu ni ma ko fekkee amul plan stratégique ñu ngi doog a tàmbali ci plan stratégique ñu ngi développer suñu plan intégrateur ñu ngi développer suñu contrat de performance avec l'État parce que nguur moo ñuy jox xaalis pour ñu mën a liggéey dañ ko war a rendre compte te dañoo war am ay objectifs yu précis donc ñu ngi koy ñu ngi koy liggéey en ce moment fii la ñu toll ci téeméeru ci téeméeru ci téeméeru fan yi. ok euh, aussi euh, par rapport ak perspectives yi aussi peut-être mën nga si ñëw vite fait. Euh, waaw d'accord mais pour les perspectives ce qu'il faut savoir c'est qu'on est en train de développer ñu ñu ngi développer benn plan benn modèle. modèle de reforestation c'est ce qu'on appelle le modèle intégrateur bi nga xam ne day am eh, aspect écovillage ci biir day am culture fourragère ci biir day am accès à l'eau ci biir day am forêt nourricière ci biir autour d'un village et bu ñu defee ba am modèle bi xam nan lay doxee ban mécanisme lay doxee ban art ban ban outil euh, technique la ñu soxla ban xam-xam la ñu soxla loolu yëpp bu ñu defee ñu def ko fiche ñu exécuter ko sur le terrain ba modèle bi dox bu modèle dox boobu la ñuy dem répliquer village par village l'addition de l'ensemble de ces modèles fait de la muraille verte, c'est qu'elle doit être. donc xëy na xaw nga dugg tuuti si question ma la bëggoon posé donc concernant un peu euh, désert Sénégal mën nañu jàpp ni c'est un pays peut-être bi un peu désertique surtout soo demee dans la dans la zone du Fouta ak yooyu donc euh, côté boobu si bëggoon nañu nga jox ñu un peu euh, say yéene ak li nga ci nar def par rapport ak loolu pour reverdir. sa sama yéene mooy mottali yéene président de la République. parce que parce que xam nga nekk. président bu fi newoon il a osé rêver de la Grande Muraille Verte tout le monde di, euh, disait que la Grande Muraille c'était un éléphant blanc président Macky Sall ñëw jàpp si gëm ko gëm na nekk mën na nekk mu jël moyen yu dul jeex mu dugal ko si euh, daf ma sas sous le leadership du ministre de l'environnement et du développement durable Abdou Karim Sall dafa ma sas pour ma ñëw motali yéene boobu te dinaa ci xar sama tànk tubéy pour pour pour def ko je suis très déterminé euh, mais luy régler problème c'est de travailler avec les 552 communes bu ñu liggéey avec les 552 communes commune bu nekk ñu am fa suñuy pépinière commune bu nekk ñu am fa suñuy forêt nourricière commune bu nekk ñu am fa des écovillages loolu l'addition de l'ensemble de ce que nous faisons va faire de la muraille verte ce qu'elle va être parce que je, considère que c'est tout le Sénégal qui doit être une muraille verte ce n'est pas simplement le tracé nekkul sax tracé bu kilomètres de longueur et 15 kilomètres de largeur bu a bu war a bu ñu bu ñu war la verte loolu dafa am solo parce que changement climatique bi il faut ñu taxaw euh, résilience alimentaire bi fa lay jóge la création de l'emploi des emplois verts fa lay jóge euh, emploi vert yooyu mooy régler problème de l'immigration clandestine parce que kuy dem di dugg ci gaal yi daa fekk mënul mënul boppam ku mën a dundal boppam tamit du déglu keneen ba di dugg ci ay affaire u terrorisme wala yeneen yeneen yeneen yëf yoo xam ne maîtriser woo ko insécurité donc tout se tourne autour de la grande muraille verte et c'est assez important on est capable de créer des emplois verts on est capable de créer de nouvelles opportunités et opportunités yooyu mooy tax ba xale yi tey am am am am am am yaakaar ci ci ci ëllëg loolu dafa am solo jërëjëf jërë ngeen jëf di leen di leen nuyu yéen ñëpp di leen baalu àq di leen baalu àq di leen baal àq euh, di di rafetlu tamit seen euh, seen seen présence fii aujourd'hui donc euh, wax dëgg yàlla je vous remercie je vous remercie aussi vos vos auditeurs voilà donc jërë ngeen jëf